Euh, grâce à cette jeu vitier les gars comme comprendre donc il mën ngeen ci mën ngeen ci jeu manam euh bini classique 21 classique 21 dota jusqu'à 3 victoires les 21 les gars donc demain a 21 classique comprendre donc bi muy wara tambli bonheur euh, dans une minute donc comme vous le voyez demain len di euh, dama len di conseiller bo len di di leen tànn bii nii comprendre ngeen un virgule cinq bi wala un wala wala trente cinq virgule cinq plus de comprendre ngeen mu nekk code un quatre vingt cinq donc donc dañu ñëw mise si benn dix mille franc gis ngeen dix mille franc mu fay dix huit mille donc ñu si beneen te gis ngeen ñu génn ñëwaat si le vingt comme vous le voyez donc bii tamit mën ngeen ñëw fii nii.

Euh, ana moo ana moo léegi bii moom bii moom mën ngeen joxe gan koo xamante ne code bi xaw na tane tuuti ngeen jox ko gan comprendre ngeen léegi dañuy pause vidéo bi après xool lan lañ mën a am gaay donc dañuy pause vidéo bi xool lan lañ mën a am comprendre ngeen xaar ma pause vidéo alors voilà sama gaay gis ngeen comme ni ma leen ko waxee woon léegi xool leen donc maa ngi nii ñetti coupon yi nga xam te moom laa leen moom laa joué woon moo nekk nii xaare leen ko léegi maanaam bii nii la ah, ak bii bii nii première bi waxoon naa leen ñaar ngeen ci mise boo leen di mise maanaam ngeen mise dix donc mu fay ñaata dix huit mille cinq cent donc fii am na bénéfice huit mille cinq fii ñaata mu fay euh, seize mille trois cent te dix la woon fii am naa benn bénéfice bu tolloog six mille fii ñaata fii vingt mille gars yi am naa bénéfice bu tolloog dix mille franc te waxoon naa leen ko gars yi simple léegi pour yéen ñi nga xamante ne amagoo leen compte LionBet gaaw leen gaaw ngeen créer seen compte LionBet rapidement les gars avec le code promo S21F seen première dép ngeen mën a am bonus bu dem ba cent trente mille franc léegi bu fekkee ni xamoo leen nan ngeen di def pour gis jeu bi ni moo nekk ni comprendre ngeen jeu bi moo nekk ni jeu vingt et la tudd is vingt et un comprendre ngeen moo nekk nii gars yi leen fàtte abonné ngeen partage vidéo bi gars yi jaajëf yéen ñëpp